mos nga sonn est-ce que mos nga sonn euh, ba doo am loo jëndee café kaasu café bu fukki dërëm Ouzin ndeysaan euh, fii Sénégal olof Njaay dana balaa mu neex foog mu metti ndax bu méttee nga daw bu neex doo ko mos a fekkee man daj naa lu ne si àdduna fala naa si mbedd hmm? fala naa si mbedd yàgg naa tëm miir yow Ouzin bàkki Seydina Mohamed dama daan tëb miir tëb naa miir dekk naa xale xale bu ndaw ñu yóbbu ma daara. tëb miir bi lan la fàq. wala ma demee géej ji. Mhm. samay nijaay. ah d'accord tëj buntu bi. tëj bi sama yaay toog sama toog buntu néegam di ma xaar. ndeysaan. bu sa soxlaa mu jóg day fëgg sama nijaay ne leen ngi yàlla jàppale ma suturaal la ma nag jox leen ko tijjeen ko caabi ji tij leen ko buntu bi. Mhm. tij leen ko. tij leen ko tij leen ko tij leen ko buntu bi seet la ma yenn saa yi jox sama yaay caabi yenn saa yi dina ko noonu yow ku mu laaj nga ne ko jox ma caabi ji. ndeysaan mos nga toog ñàkk loo lekk yow. waaw yenn saa damay damay damay damay toog du ma ma lekk damay dem uh, fuur ba ma fuur ba fuur bu ma ma nekk indi trois fuur dem ñaani fuur bi faga pour jënd pour wut suukar ñu may ma lu euh, li ñuy. Euh, li ñuy dindee si kii bi. Euh, ñooxit bi bi <laughs> ma def soow lekk. waaw métti woon sama côté trop ma amaa woon sama nit ma doon jàppale. dëgg yàlla yàlla moom mosaf ma demoon euh, koñu ndéggee. Mhm. mam sam benn jigéen bu tudd Adja Ndiaye waa ko ñu ma neen waa ko Oumy Ndiaye bu nuyu ñu ak maa jàppale. ndeyjatu jeen tam benn ndeyjatu jeen jëkkëram jëkkëram bu tudd euh, ndeyjatu jeen. sama jigéen doomu nday ndey jatu doomu nday nday fay bu nekkoon RDV. ah nday sama jigéen. waaw kooku tam yàgg maa jàppale moom tam nekk ku ku ku baax Ousmane Penkat sama mag yàgg maa jàppale moom ñoo xam ne waa kër nekkoon waa kër déggee waa kër day fàtt ñoom day mati maal ñoom day fàtt maal ñoom Papa Dieng ñoom Action yàgg maa jàppale. dëgg kon Ousin mu sonn sonn. mu sonn sonn sonn fanaan fanaan àll mbedd. man fanaan naa si buntu ko ba taay. Hmm? bakki seyd na sallallahu alayhi kaam ka nga wax la benn seekal tey laa ko mos a wax si àdduna mm-hmm. bàkki laay laax la bàkki si bu lu may FN la kon bu ma talal sama ndey dama 2013 dama mos a toog suñu buntu kër du ma ko mos a fàttaliku deux heures du matin suñu buntu kër mooy idée trois fu ma defee bëri bërigo mm-hmm. fu ma defee xamaguma dara mënaguma dara fu ma toogee baax jaaxle mm-hmm. benn ndaw si benn ndaw si na ma Ousseynou Kayta ma ne kaa ah, ma yuux na jub fu nit yu daana yuuxu na jub nit fa wutewul mm-hmm. dégg mun ma ah. mun ma mun ma sa métti méttit jeex na mun ma bilaa ëpp demee yàlla toox ma ay taktal yu garaaw jox benn kay na ma dugg ko suuf loon daal mm-hmm. na ma digg àdduna ne na gën a dégg na ma digg siiw ba àdduna na na ma na ma na ma ma maam li ma feeñu nii mm-hmm. na ma ko na ma ko feeñu déwén heure boobu na ma ko feeñu waa feneen daf ma ko feeñu benn côté la ma koy la kon. 2013 euh, dama feeñu. ndaw soo jàpp ne nit la. Oh, maa ngi ñëw commencement mhm. ndaw su rafet ndaw si jongo ma weex taal. yoro socc daal di daal di euh, fii yëpp dafa ñuul jamu siiñ. si siiñ. Mhm. sama buntu kër ma fekk ma toog suñu buntu kër si mbaar ma nu ma Ousseynou Kayta. ban heure la woon jàpp nga. 2 na ma deux heures du matin. Mm. as deux heures trois daal. Mm. ay trois heures daal heure trois heures ak daal. bi suuf seddee. bi suuf seddee na ma Ousseynou Keita na ma sa xol dafa rafet man kaa mun mun macha allah safla safla deux heures de maanaam quatre heures mooy daal avant ñuy nodd. avant ñuy nodd waaw ba mu demee dafa dem dafa dem tuuti après ñu commencé nodd premier nodd. mënu ma useenu kay dabam laa mënu ma useenu kay mënu ma mënu ma soxor dafa dabam ka mënu ma dëgg mënu ma dëgg faj doomu ah, doomu aadama mënu ma mënu ma ma soxor dafa mënu ma koo gis ak kafe comme sa bopp mënu ma mënu koo gis ak yéene ma yuux nañu mënu ma dëgg siiw di àdduna ne de mënu ma métti bi fi la yam naara feeñuwaat a beneen facette hmm? daal di jox ma lu may jox wax kott moom kott ma daa dem yoonam daaw ma tiit na du tiit man yor ma fitu tàppet man du ma fitu gaynde laa yor daal di bàyyi ma daal dem yoonam. mos na dellu si waaw ba mu delluwaat ndala ma fekk ba mu delluwaat ndala ma fekk. Saint-Louis. Mhm. mu fekk ma toog man sama manager sama fekk benn gars ñëw fekk ma toog mu doon benn gars mu ñëw am lu ma day am lu ma wax. Hmm? waaw ma ndaw sa la ma gars yi wax. fële dafa ñëw si jëmu jigéen bi yoon eh, góor la. góor la Hmm. Euh, Ousin su la déggee sama yaay sama yaay sama yaay day ñëw lu bari si si li ngay wax. waa xamata loolu sa digganteeg sa yaay lan xam nga sama yaay dafa sonnoon si man sama maam sama maam sama maam tam dafa sonnoon man. ba ba demee daara sama maam moo daan ñëw daara da dama seet si moo daan def yëpp waa sama yaay maa tax feebar yu bëri dat ko ndax nekk naa xam ne yóbbu ma daara sama yaay feebar ba am jabet hmm. am gumu xol yóbbu sa doom yóbbu sa caat koo xam ne sama yaay koo xam ne damaa. man damaa collé woon sama yaay sa ñooy nekk maam moom sa sama dem dem naa ba nekk mag dem naa bay jàng école ba am ay ay sixième comprendre nga na ba am ay huit ans lu tee dama dama la uuf sama wattu yaay damaa collé woon maa sama yaay sama sama yaay da daan da lu mu daan wax loo ne ko wax loo xam ne loo xam ne du ko du ko wax sama jigéen ni man naka daan waxal man daaw ma nëbb dana da waxtaan maam moom danaa ko yow ki doom comme sa morom day waxtaan waxtaan man sama yaay daaw ma nëbb daal dana waxtaan man comme xaarit mm-hmm. bu waxtaanee man ñu maa moom ñu waxtaan kàddu yoo xam ne mus kàddu yoo seen si àdduna mm-hmm. comme ay xarit mu doon sa man man tam du ma ko nëbb dara man lu ma suma ngoon sama yaa xam ne ko mm-hmm. lu ma suma ngoon sama yaa xam sama xam ne doomam mu nekk sama xarit nekk sama lépp tey jii ma yàgg bu daan tegg nag dana dana ma yëkkati ay yére dana jëma jënd ay yére bu ma saan gis seenu xaalis dana jënd seenu xaalis lu mu gisee du rafet dama ko jënd sama day sa gis ay ay carton sa jënd ma ko ba ñu naan sa sama sama yaay daaw soo da lu ba naan ko yow dangay jëng sa doom bi dangay leen dangay leen kii am. mën a mm-hmm. sama caat bi tôt temps moo ma yor. Mm-hmm. sama euh, ba ma ëmbee dafa tëdd si kaab si kaab waaw li ma tëdd. Mm-hmm. am ko ba ngaa biir bi na ko da am na ko sa doom de bu màggee bu nekkul borom bopp tam dina nekk ku àdduna xam kii moo la yor. bu ko wax mu sonnoon si man tam li mu mu sonn si man si doom ma man métti mu sonn xam maay caatam mhm. biir mu sonne woon si si biiram daal mhm. damaa sonnoon dafa dama kaa sonnaloon daal si biiram waaw boobu gën mu sonn si man tam mhm. mu dem ba yàlla dogal yàlla dogal ne yàlla mu dem ba ba man am moom ñu kolee nekk ay xayit nekk ay lépp mu nekk sama mu nekk sama complice ñu nekk ay moo tax tey lu ma mën lu ma sama yaay Euh, am na euh, sa je me du ma wax salaire wala lan nga yëkkati li nga xam ne tey jii moom nga ko njëkk jox pour pour seral xolam yaa ngi koy fàttaliku. man nga far xam nga xam nga xam olof Njaay dana mm-hmm. nit boo defar sa yaay. Mm-hmm. doo toog télé di wax na di wax na mm-hmm. fa sa doo defar sa yaay. loolu da koy def te yàlla tax. ñaar. sama yaay ko gën a lu mu gën a bëgg si àddunaam xam naa ko. defal naa ko xolam sedd na si ba doo sa yaay fu mu gisee sa yaay bu ma solo sax day jooy. fu ma njëkk gis jooy leen njëkk def. Mm-hmm. Ah. Eh, moom bu déggee ñuy wax Ouzin fii wala teg sa sa sa sa der lu ñaaw eh, lu mu koy def. yenn saa yi bu ñaaw moom de am lu ko métti naat mm-hmm. da koy jaral mu jooy. Mm-hmm. sama yaay ba bëgg dana génn dana dem dugg si sama son mu mu wàcc nekk dem di feet na ma ma yaay loolu neex na. sa yaay day dugg si Maïka sax ngeen Ouzin Keita mu dëggu mu xaar ba nga wax ba saa da dafa bëgg may dafa bëgg lekk ne dem na may ga toog di lekk dafa bëgg dafa bëgg may ko di lekk am am ku ne Ousseyn laa jépp sama yaay mais bu noonu naan la jël sotti ko ko ne ko mais loo def mu ne ko Ousseyn maa ngi ndaayam kon daf lay xeexle waaw